wàllu culture wàllu àdduna wàllu politique dañuy def lépp loo xamante ni dafay dellu ci couverture médiatique kon nag rawatina yéen waa Sénégal yéen waa àdduna seen mbokk tey oustaz ci am seen soppe seen oustaz seen mbokk moom lañ dalal fii ci Hann TV tey nag ñu bëggoon jàngat benn tomb boo xamante ni tomb bu am solo la mu nekk thème d'actualité defe naa buñ ne thème d'actualité ñëpp ñu ñuy suivre dinañ xam lan lañ bëgg a wax maanaam ñi ngi nekk ci fin d'année fin d'année mooy lan ku tudd fin d'année dina am ñaari personnage yoo tudd waaye timit dina am benn baat buñ ciy dégg muy baatu Noël donc fin d'année bu ñu ko waxee jeexantalu at mi lay signifier mooy fin d'année waaye ku tudd jeexantalu at di nga tudd li ñuy tuddee évaluation moo tax jullit bi moom fin d'année bi liñ koy laaj en tant que ndaw mu jullit mooy mu évaluer boppam moom mooy kan te pour mu évaluer boppam mooy mu poser boppam wax ni li ma xulex naa lan moo tax yàlla binduñu wa kay fa nax yaa naka lañu ñu war a mën a dundee ci société bi mais rawatina société bu polier waaye wa ilaa aynal masiru fan la ñu jëm moo tax yow mii ndaw yow miy yaakaaru ëllëg fin d'année am na mën nga ko feetu waaye à une condition mooy nga évaluer sa bopp xool ndax jëwoo fi gor xool ndax saaga woo fi xool ndax iññaane woo fi kenn mooy tax sa fin d'année boo ko feetoo mu nekk loo xamante ni lu baax la moo tax bu ñu remontee tuuti ci histoire Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk xam na ni sunu borom da ko waxoon ni ko waa waabud rabbaka xataa yëtiyekal yaqiinu jaamal sa bo jaamul sa borom ba keroog dee dikkal la saaba diir loo ciy dégg mooy nga xam ni kon ndekete yàlla kenn du ko jaamu ci occasion kenn du ko jaamu ci occasion moo tax bu ñu toogee ba tey tamit ñu naan suñu ndaw ñi dañ leen di fàttali tamit lan mooy Noël wala lan mooy vingt cinq décembre wala 31 décembre day nekk benn tuuti échec ci ki nga xamante ni mooy ndaw jullit parce que ndaw ci àdduna dañ ko war a yàpp dañ ko war a canaliser dañ ko war a orienter waaye fête bii nag ñuy wax nag Noël wala fin d'année mu am ñaari personnage yu am solo muy naa Seyduna Isa Seyduna Isa kenn ku nekk xam na ni almasih moom moo doon surnom mooy ki doon effacer wala kiy fomp fomp lépp loo xamante ni tout ce qui moom loolu la doon dindi yàlla mayoon na ko ci pouvoir muy dekkal ay nit yàlla mayoon na ko mu nekk ko xamante ni médecin la woon maanaam da doon faj kon li ma ci dégg mooy même ñi ñuy tuddee les médecins sans frontières sax ñoom ndeke am nañ parrain te yëguñu ko mooy Jésus mooy Isa alayhi salaam moom moo nekk seen parrain kon yow mi seetaan sa site web bi nga xamante ni mooy Hann TV na nga xamante ni am nga benn modèle benn référence muy Seydouna Issa bi nga xamante ni docteur la woon kon képp kuy fajaate na nga delluwaat jàng lan mooy vie œuvre wala biographie ki nga xamante ni mooy Issa alayhi salaam waaye moom dafa am benn yaay boo xamante ni mooy la Vierge Marie lañ ko tudde képp koo xamante ni nag jigéen nga ado nga ak âge boo maanaam de 14 ans âge de puberté sa xel war na dellu ci waat kooku mooy sa marraine lan moo tax ndax moom fooyewul boppam dafa toog jaamu yàlla nekk ci temple ba ba yàlla defal ko fa xéewal boo xamante ni kenn masu ko am kon ñaar nekk na loo xamante ni lu am solo la waaye nag fête bi nag mu am benn particularité bu mu am muy xale yi surtout way jur yi ñu wax ni waxuñu bu kenn jëndal kado waaye jëndal kado bi am na ay inconvénients am na ay avantages parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu jàngal ni ittaqullaha waadilu bayna awlaadikum yonent bi nee na ragal leen yàlla te ngeen maandu seen digganteeg seen doom yi baatu maandu boobu nag li muy firi ci tubaab mooy favoritisme ñi ngi seet am na xale yu ciy bég waaye am na yoo xamante ni kenn du leen ci bégal loolu dafay dellu ci favoritisme nga gis koo xamante ni dafay dugg ci kër jëndal ñaari doomam bàyyi doomu magam wala doomu bàjjanam loolu favoritisme la te l'enfant est l'espoir de demain al atfaalu amaalul xaddi bu ñu demee bay jënd kado tamit xale bi ban kado lañ ko war a jëndal parce que lu mel ni pistolet boo ko jëndalee xale bi mën na nekk probablement koo xamante ni ku violant la mais duñ ci bàyyi xel da ngay gis koo xam ne day jëndal doomam doomu tubaab wala mu jëndal ko n'importe quel jouet moo tax xale bi ñi nga xamante ni ñooy jàngale psychopédagogie de l'enfant wala connaissance et besoin de l'enfant xale bu nekk dafa am mu soxla xale bi am deux ans dafa am cadeau bu ko war a ëndal ku am 4 ans noonu ku am 6 ans mais ñun way jur yi ñun suñu yoon new ci dañuy dem indi rek jox ko ki nga xamante ni moom mooy xale bi ñu daal di koy jox. gis nga am na beneen sew-sew bu ci nekk bu dee suñu mbokk Occident yi dañuy bàyyi ba min jot ñu occuper li équiper li nga xamante ni moom mooy salon bi defar néeg bi xale bi tëdd. ñu defaral ko ay jouet xale bi bu yeewoo benn baat rek lay wax mooy maman wala papa dou vient ce la dañ naan ko c'est moom moo la ko envoyé alors certes xëy na mën na nekk moom wala du nekk moom mais bu fekkee Père Noël la est-ce que wax nañ dëgg waaw wala déet parent yi ñooy jënd ko doy wala waaw du moom loolu am na benn taxaw seetlu yow mi nga xam ne yaa gëm Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme moom dañ naan xale bi dañ koy équipé ni ko euh, Père Noël moom moo la ko jox yow it bu sa doom tëddee nga bàyyi ba mu nelaw nga jël jouet yu dëpp ak personnalité am nga teg ko fa su yeewoo bu leen ne papa ma jox lii nga ni ko sa maam Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo la ko indil dina tax mu xam ne yonent bi mooy référence am mooy modèle am mooy ki nga xamante ni moom mooy maamam te moom mooy yonentam am na beneen jàngat boo xamante nit war nañ ko def tamit ci loolu maanaam lu taxoon origine Père Noël lan la xam nga ñun ñëpp xam nañ ni tubaab du yar parce que tubaab dafay instruire mais du yar instruction ak éducation du benn comme ñoom nag mënuñu yar moo tax xale bi mënuñu ko dara moo tax ngay dégg tubaab bi suy wax ak doom mu naan ko maman tu mens papa léegi comme ñoom mënuñu ko yar nag moo tax à la place de ñoom li ñu waroon def ñu nax xale bi ñu ko soo jàngee soo góorgóorloo dinañ la may cadeau per Noël naam baax na parce que Serigne Cheikh laa mës a dégg mu ni soo consulter texte yi na nga interroger phénomènes yi kon phénomène boobu nag moom mooy tax te ñun système bi moo ñu ko imposer kon suñu doom yi nañu feetu mais nag nañu leen orienté wax leen kan mooy Seydouna Isa nañ leen sensibiliser ñu wax leen kat mooy seen maam Seydouna Muhammad nañ leen canaliser parce que bu ñu leen canaliser wul dañuy dem ci yeneen moo tax lu mel nii bu ñëwee nga gis ñi di ci organiser 31 décembre di ci organiser tagg yonent bi ñi organiser ci loo xamante ni ay gàmmu la wala loo xamante ni dafay delloowaat ci ndaw ñi kon feet bii nga xamante ni feetu noel la ñu koy tuddee feetu fin d'année war nañ jàngaat kan mooy Sayyidatuna Mariama waaye war nañ jàngaat kan mooy Isa al te yonent bi sallallahu alayhi bi mu ñëwee dafa dëggal li nga xamante ni moom mooy moom la fi Isa bàyyi woon kon nag ci dañu nekk ci dëkk boo xamante ni dëkk boo xamante ni dafa am yu ñuy bàyyi xel moo tax du lu nekk la ñuy dàq ba mu jeex du lépp baaxul parce que xale boo ko amee danga koy canaliser wax ka lan moo baax lan moo baaxul bu ko defee nag fii nag ci Hann TV nag lañu amoon ay orientation rek ak ay explication en tant que mbokk daara waaye en tant que moniteur collectivité éducative boo xamante ni dafay yëngu ci wàllu ndaw di yëngu ci wàllu développement ak wàllu aar fi ñuy tëjee kàddu gi nag dina bari du bari waaye ñun waajur yi am nañ ci responsabilité bu rëy encore une fois parce que yowmal xiyaam yàlla dina la laaj nan nga doon yaree sa doom nan nga doon yaree sa doom ndax kullukum raain wa kullukum masulun an raiyati yi dafay daal di ñëw moo tax lépp nag c'est la base bu ko defee daal Noël yaa ngi noonu fête yaa ngi noonu mais ñu canaliser njaboot yi parce que yonent bi wax na ni allimu awlaadakum fa innahu maxluquuna li zamanin xayra zamanikum waajal leen seen njaboot parce que dañ leen bind ci jamono boo xamante ni bu bokkul ak seen génération la kenn ku nekk xam na ni à l'époque internet amul woon média ameewul woon nii ak ni mu doxee moo tax di leen contrôler di vigilant di xam ci lan la ñuy dugg ci feet yi loolu ñu amoon ay orientation ci ndaw yi ci parent yi ci société bi ñu xamante ni fin d'année lañ nekk waaye jullit bi daal moom da ci war a évaluer boppam ci jaamu yàlla moom mooy kan ak lan lañ koy doyee bu ko defee seen mbokk Oustaz Makhtar Thiam moo nekkoon rek di wéralanteeg mbokk yi fii ci Hann TV di jégaluwaat ñëpp di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla mottali yàlla na yàlla def tawfiix yàlla def taysir na jaax wa axru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.